wala sëñ Tuubaa sax di ko gën di leeral ci masaalikul jinaan naan laa tasdari li abda li xubxil malbasi lu kii la naan bul xeeb jaam bi wala nga di ko ŋàññi ngir yére yu bon wala yére yu tilim amaana ngaa nit ni mu wàcce boppam yére yu tilim lay sol yu sagara lay sol fekk sëñ Tuubaa nee na ma nga fes dell ak i leer ak i sëkkër ci suñu mais ba tey itam ci genn wàll wa rubba abdin qad ala indal uyun ka annahu qutbu raha haysu yahin nee na am na koo xam ne ni day kawe lool ci bëti nit ñi ndax saa yu génnee rek na tëll yaanjaay baag taar ba ñu ne kii xutbu la wa siituhun tashara fil buldaani wa huwa kal qirdi la dar rahmaani mu ne kooku lañ koy tagg ak la ñuy wax ci moom yëpp ma nga mal ne golo fa suñu borom kon yére déterminé wul dëgg-dëgg lan mooy nit ko waaye nag sol lu yiw moom wax dëgg yàlla loolu dafa bokk ci li sàkku ci ab julit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 waaye waxtu mi ngi dem te réunion comité directeur dañ koo tënkoon ci koromu daayira te yaakaar naa li fi ci daayira mën na fukk ak juróom wala fukk juróom benn moo tax kon dañuy daal di tàmbali liggéey bi incha allah fi ñuy doore suñuy kàddu rek mooy santaat yàlla bu baax rek ci daje bi ñu fi dajewaat tey te yàlla moo ñuy suturaal dimbale ñu may ñu kattan ak wér bàyyi ñu ci léegi ba bañ bañ nekk ci ba nga kon ñu koy sant bu baax a baax a baax di sant itam Serigne Touba bu baax di daloo njukkoo itam suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo taxawal léegi bi man mën cee yëngu maa ngi sant itam mbooloo mi fi teew yëpp di ay responsable te bàyyi ay. membre yu bëree bari wala mbooloo mu bari ci ginnaaw kon ñu ngi leen di ziyaare di ziyaare mbooloo moomu jaaree ko jaaree ko ci yën di sant bu baax itam équipe bi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi daaw beneen tey ñu war a càmbaraat te ñu dénkoon sax liggéey boo xam ne juróomi at ci la jëm waaye ñu war a toogaat tey jii pour càmbaraat xool ba xam yan coppite moo ci am wala déet ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax baax di la gërëm di leen gërëm muy ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéey bi muy samay adjoint maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm euh, wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne sama jot léeg mu xaw a manqué ndax maa ngi kéelal te xéelal sori na soriwul waaye yu baree bare mënu ma ko mënatuma koo teewee te yi ma mënta teewe yëpp ñoom ñoo ma cay teewal loolu kon amel naa leen cant amel naa leen ngërëm kon sama adjoint yi tàmbale ci Amadou Ndiaye Nguirane Ibra Kane si Cheikh Kounta ak si Aliou Niane ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax rawatina nag Ibra Kane maa ngi koy beral cant ndax wax dëgg yàlla yu baree baree bari moom ma cay wutu saa yu mën a koo jógal rek mu daal di jóg ndax ku disponible la kon ñu ngi koy beral cant di ko seddeel di sant ñu jiital commission yëpp itam. dëgg yàlla damay bañ a jaar ci di lim waaye mboolem ku jiitoon ak commission ak ñi nga àndaloon sant nañ la bu baax a baax baax ci taxawaay yi nga xam ne amoon nga ko ci liggéey bi ndax liggéey bi macha allah yombul waaye kenn ku nekk gis na seen Pastef ak seen taxawaay kon loolu amee naa cant ak ngërëm kon sant rek lañ doon jiital ci li weesu waaye itam di leen soññ ci li ñu jëm itam te incha allah dinañ ci ñëw léegi bi sama yàlla. di soññee itam ci liggéey bi rek ñu gën a saytuwaat bu baax a baax a baax base bi te mooy daayira yi ndax lépp foofu lay tàmbalee bu sooxee lépp sooxee waaye bu jagee itam lépp jag kon mboolem responsable fi nekk sama bopp laa jiital maa ngi lay dénk nga gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci taxaw ci baas bi di soñ nit ñi ci dugg ci kër yi ngir daayira yi bu doxee rek liggéey bi dal dox te mel na ne li ñu seetlu mooy am na ak cooxe gu bëree bëri yu nekk ci biir daayira yi loolu kon ñu ci soññewaat bu baax a baax su ko defee kon tey réunion bi ni mu war a tëddee ordre du jour bi mooy danañ def benn compte rendu bu ndaw rek ginnaaw bu ñu ci jiitee la information kon information mooy point bu njëkk bi après ñu def benn compte rendu boo xam ne bu ñu tënk lay doon. suñu paree ñu càmbaraat bureau bi suñu nappee question diverses incha allah bu ci xajee suñu maxtaar yàlla noonu baax na kon dañuy dellusiwaat rek ci soññe yi ba tey mu jëm ci wàllum liggéey bi dama koy tënk rek ndax xawoon naa bari mais dama koy tënk mooy damay jiital sama bopp ci li may wax mooy nañu gën a yeesalaat suñuy yëg-yëg ci liggéey bi te mooy saa su nekk ñuy bàyyi xel ne liggéey bi wala kuréel gi ñu nekk muy fédération bi association islamique la maanaam kuréelu diine la te mooy kuréelu diine gi gu formel gu taxaw goo xam ne nii dafa taxaw ci ay kayit gouvernement reconnaître ko mooy kuréel gi gën a njëkk a taxaw ci yoonu murit kon association bi ñu nekk di ci yëngu euh, ci ndey association yi la bokk islamique yi donc kon kenn ku nekk bu ciy yëngu na bàyyi xel ci ne ci kuréelu diine lay yëngu hmm. te kuréel la boo xam ne itam li ko tax a jóg rek mooy former nit wala tabax nit te mooy jàngal ko yar ko former ko waaye fexe ba itam ñuy am solidarité suñu biir loolu boo amee rek mooy nit ñi jag société bi jag te loolu dëgg-dëgg mooy yitte fédération bi. kon loolu day laaj ñu gën a yeesal ngëm-ngëm yi bu baax a baax ci liggéey bi waaye itam gën a jubal rang yi waaye kenn ku nekk liñ la dénk ci liggéey bi itam nga di ko saytu bu baax a baax te bàyyi ci xel kon daal nañ gën a defaraat jikko yi bu baax gën a defaraat laay wax waaye itam nañ gën a defaraat comportement yi muy melokaan yi moo xam ci jëmm la moo xam ci wax la moo xam ci jëf la loolu itam aussi nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax te itam di gën a moytu itam jaxasoo bi léeg-léeg ci réunion yi walla ci xew-xew yi ci diggante góor ñi ak jigéen ñi xëy na jaxasoo mënul ñàkk ndax mbooloo mi famille la waaye nag saa saa suñu dajee itam nañ xool naka la ñuy ànde ba ku ñëwoon di xool rek lu négatif du ko mën a gis loolu aussi lu am solo la ciy soññee bu baax te jiitu suñu bopp incha allah xool colin yi aussi lu am solo la saa su nekk mu yiwee moo xam ci góor ñi la moo xam ci jigéen ñi la te loolu mën naa ci joxe tuuti misaal rek sama bopp duma ko faral def sax waaye man daayira bi yaakaar naa 2007 laa ci laa ci commencé dox activement wilaya 2007 yàggul daanaka ñi fi nekk ñëpp samay doyen lañ ci liggéey bi mais keroog bi ñu ma boole ci liggéey fal ma président daayira rek ci laas gasama bu ci ne pantalon ci boppam dootuma ko sol salpante loolu nag araamut ayut waaye loolu man maa ko teggil sama bopp ngir ne damaa jàpp ne liggéeyub lislaam boo ci nekkee jiite au moins nga wane benn comportement boo xam ne wala benn malokaan boo xam ne ku la gis dina xam ne yow mi kët ah yaa ngi jéem a euh, wàccoo ak li nga xam ne mooy culture murit loolu moo tax 2007 ba léegi ci laa wàcce loolu sama bopp te dama ko wàcc sama bopp ci mu des sama dund yëpp ci ndimbalu suñu borom tabaaraka wa taala loolu xeetu soññee rek ci nga xam ne ay yére sax du mooy déterminer dëgg-dëgg lan mooy nit ki waaw ay yére mënoo si ci atte nit di ko tubaab di wax ne l'habit ne fait pas le moine wala sëñ Tuubaa sax di ko gën di laaral ci masaalikul jinaan naan laa tasdari li abda li xubxil malbasi lu lu kii la naan bul xeeb jaam bi wala nga di ko ŋàññi ngir yére yu bon wala yére yu tilim amaana ngaa nit ni mu boppam yére yu tilim lay sol yu sagara lay sol fekk sëñ Tuubaa nee na ma nga fees dell ak i leer ak i sëkkër ci suñ borom mais ba tey itam jigéen wàll wa rubba abdin qad ala inda al uyun ka annahu qutbu raha haysu yahin nee na tam am na koo xam ne ni day kawe lool ci bëti nit ñi ndax saa yu génnee rek na tëll yaanjaay baag taar ba ñu ne kii xutbu la wa siituhu ntashara fil buldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani ne kooku lañ koy tàggat lañuy wax ci moom yëpp ma nga mel ne golo fa suñ borom kon yére déterminé wul dëgg-dëgg lan mooy nit waaye nag sol lu yiw moom wax dëgg yàlla loolu dafa bokk ci li ñuy sàkku ci ab julit te loolu itam mooy culture yoonu murit te loolu sax mooy suñu culture rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk Daarul Xudoos kon maa ngi ci soññee bu baax a baax a baax fi may daaneele itam ci organisation laa koy jëmee bu ñu fàttalikoo sëñ Basiru ñaan dafay waxoon lu am solo at yële wala ñaari at ci ginnaaw mu wax ne mbooloo mi muy fédération bi muy wilaya dafa am loo xam ne ni aki la maanaam lu ñu dox la ba wut ko ba am ko ba téye ko te loolu mooy organisation macha allah bu dee ci éducation école yaa ngi fi bu dee ci culture njàngum alxuraan yeeg conférence yeeg exposition yi mi ngi fi ñu ngi ciy yëngu bu dee ci social ñu ngi ciy dox lu am solo bu dee ci communication kadalika ak bànqaas ba mën a jël rek am nañ cee taxawaay yu mat sëkk. mais nag organisation mooy li nga xam ne moom la ñu ràññee mbooloo mi moom lañ ko nawee dëgg dëgg dëgg te itam ci la rawee ñu bari kon na ngeen xam ne li ngeen yor lu diis la ndax li ñu xoolal mbooloo mi la kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax a baax dox ci ak fulla ak fayda ak responsabilité te bañ a xeeb seen bopp te bañ a xeeb seen bopp ndax euh, liggéey bi moom ku ci nekk di xeeb sa bopp rek xamoo dëgg-dëgg liggéey bi kon na ngeen gën a nawaat seen gën a xamaat seen bopp ñi ngeen àndal itam ñu nekk seen ginnaaw ngeen ànd ak ñoom ci responsabilité te mooy liggéey bi moo leen boole ngeen ànd ci liggéey bi te bañ di waxee wala di doxee noo xam ne tax ñu nekk seen ginnaaw xeeb leen loolu bu ñu ko defee rek mën naam am lépp dana sotti incha allah ñu nekk ci gannaaw itam ñu bañ a fakkastal ñi leen jiite waaye itam ñu nangul leen nangul am solo la ci liggéey bi te mooy ki la jiite donte ne atam bëriwut donte ne xam-xamam bëriwut. donte ne connaissance ma relation bëriwut waaye terewul yàlla moom la jiital ci kanam kooku nangul ko dafay bokk yow ci lay jariñ ci liggéey bi ci wàllu payoor maanaam wàllu la xam ne moom la ci làqal dëgg ci ay ngërëm loolu nga nangul sa njiit koy may kon ñi jiit nañ leen di nangul bu baax a baax a baax te mooy ndigal yi ñuy joxe te liggéey bi tax rek loolu ñu di ko exécuter na mu waree kon daal loolu maa ngi leen koy dénk bu baax a baax a baax incha allah damay xalaat ne sax lii des ci at mi suñu orientation ci wàllum liggéey bi wala walla wala suñu plan d'action sax ñu jëmee ko ci ñaar yoo xam ne xëy na daañu ci toogaat waxtaan ci muy organisation boobu mu wax ak lu jëm ci wàllum développement incha allah ndax ñaar yooyu moyen la yoo xam ne bu ñu ci sukkandikoo dana bokk ci yii mën a suqaliwaat mbooloo mi gën a waat image yu mbooloo mi donc kon loolu daal laa amoon ci ay ndénkaan yu ndaw rek ñu mënoon dénkaane. su ko defee dañ koy tënk foofu ndax waxtu yi moo xaw a gàtt li ci des bari na. Magal mi ngi ñëw muy 20 muharram ren ji itam jagle gi mu am mooy centenaire bi mooy téeméerélu at ñu war koo màggal war koo dundal mu mel nag bu ñu nee centenaire kon bis bi day amaat beneen dayoo daye boobu itam la koy joxe dama jàpp ne wilaaya kenn war ko caa jiitu ci wàllum ay innovation indi yu bees yoo xam ne eh, wax dëgg yàlla dana tax ñu xam ne màggal gi am na beneen niveau bu mu yéeg lan ngir ngir boobu kon nañ ko waajal ñu ñëpp. kenn ku nekk ci xalaatam ci ay yëg-yëgam ay proposition am allah ci daje yi nga xam ne daañu ko am ci kanam ñu xool ba xam naka lañ cey mën a taxawee. di bu baax itam suñu gan mu suñu Abdou Ba euh, ak suñu Cheikh Diop nga xam ne tey ñoom la secrétariat national wilaya des jeunes délégué Cheikh Diop Ndigal maanaam Cheikh Diop Taïf ñu ñëw superviser li ñuy def nii ñoom nag dañuy superviser ndax ñenn ñu nekk euh, ñoo tënk seen tënk. waaye ñoom say nañu ne xool li ñu tënk lu mu tëddee ñu ñu saytu ko jàllale ko ca kaw incha allah kon si Abdou Ba ñu ngi lay ziar di si suñu Cheikh mi jiite liggéey bi di ziar jëriñu def yabal euh, muy si Abdou Fatah Fall ak ñoom si Ibra kon maa ngi taxaw taxawlu fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 bureau bi ndax bureau cinq ans la te loolu mooy ndigalul mooy ndigalul bureau fédéral li mooy ndigalul congrès tuubaa nag ñëw tey ngir sant ñu yoroon liggéey boobu jàngat nag bureau boobu ñu dafa nekkoon 2003 lan moo ci am ay njuumte wala ay ñu doxut wala ñu war a soppi def nañ ko ci amee mu rafet ba jàpp naa ne li fi nekkoon ñi sañse bariwut donte nag am na ay postes yoo xam ne moom am na ay renforcement ñu génne fa ay nit am foo xam ne dafa yokk ay nit mën naa ko wax ne kon président changé wut muy Serigne Cheikh Diop Kellel sëñ Bassirou ñaan sëriñ Ibrahima kan sëñ Cheikh Mbacke Kounta sëriñ Moutala ñaan sëñ Khadim Lo mooy présidence bi secrétariat bi sëñ Makhtar Kane sëñ Soxna Ndeye Fatma Niane sëriñ Cheikh Lo sëriñ Fallou Kébé administration sëriñ Cheikh Dieng Baye Cheikh Ndiaye soxna Fatou Kire Kare sëñ Bounama Diop Cheikh Mbaye sëñ Cheikh Mbaye ak sëriñ Ahmadou Fall secrétaire à l'organisation Thierno Sarr sëñ Cheikh Diop Ndigal Moustapha Kare Khadim Ndiaye Moustapha Sow na Yacine Khoule sëñ Mbacke Thiam Soxna Fatou Khary Kane soxna Kiné Signane secrétaire éducation sëriñ Cheikh Fall soxna Ami Sarr sëriñ Djibril Ñing sëriñ Ablaye Diagne sëñ Mbacke Diop Balla soxna Ndeye Fatou Thioune affaire sociale sëñ Cheikh Sène Ndiaye sëñ Mbacke Diop soxna Ndeye Fall soxna Assou Fall sëriñ Ablaye Niang communication sëñ Balla Ndiaye sëñ Baye Mor Baye Moutar sëñ Aliou Badara Diop soxna Ndeye Fatou Fall Baye Mor Ndiaye finance sëñ Cheikh Sarr sëñ Cheikh Mbaye Niang sëñ Mbaye Sarr sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan sëñ Cheikh Ndiaye sëñ Moustapha Sey sëñ Modou Lo Dieng euh, relations extérieures sëñ Dame Loum sëñ Modou sëñ Modou Guèye sëñ Aliou Niane sëñ Modou Fall sëriñ Thierno Fall ci 19 daayira yoo renouvelé seen instance tolloog 788 membres yoo xam ne ñoom ñëpp jënd nañ carte am na nag daayira yu yu weesewu carte waaye comme que càmbar la mën na leen xaari ni am na ñoo dëkk biir mën na leen xaari ni ba seen daayira joxe seen i renouvellement ñu soo continuer jàpp naa lu mooy bureau bi. ñu ñëw ci turu secrétariat village jeune moo ñu yabal ñu ñëw fii ànd ak Cheikh Diop Ndigal waaye fekk fi tamit administration Cheikh Dieng ñu àndoon pour former bureau communautaire muy organisation ak ak secrétaire administratif. tey ñëw nañ fi Touba doon leen formel seen bureau communauté de ruralisation euh, fekk fi personnel bu bari te effectif u yu xaw a bari tamit ndax 22 euh, daayira moo nekk ci communauté bi te 15 yi teew nañ euh, ñu doon def formation bureau bi mais ñu ngi ko doon def nag ci proposion li nga xam ne moom la bureau exécutif bi indi ci lañ sukkandiku pour def li nga xam ne moo doonoon formation bi yàlla dogal na itam mbooloo mi fi teew euh, validé nañ yëpp yi nga xam ne moom la bureau exécutif bi euh, proposé woon. ñëw na fi formé fi euh, jurut burut tay rek yàlla dogal na tamit ñëw na bii nii def formation dem naa ci yeneen sexe communautaire tamit foo def fa formation waaye wax dëgg yàlla formation bi ma gis tey bokkul ak yi ma xam daanaa ko gis parce que dafa nekk loo xam ne gis naa ñoo xam ne ñu engagé lañ. ci li nga xam ne moom lañ leen fal euh, ci volontaire ak ñi nga xam ne itam ñoom ñoo leen fal ndax euh, kenn ku ci nekk bi nga xamee ne wax nañ ne diw moom lañ proposé ñëpp dañoo wane ne ànd nañ ci moom carrément pour for pour former ko ci bureau ci ci poste boobu. loolu nag yàlla dogal na fi moom ci diir bu gàtt lañ def formation bureau bi euh, ñëpp ànd ci vraiment nekkut loo xam ne lu lu yomb la daal kontaan nañ ci trop trop trop wax dëgg yàlla. waaw lii mooy. xam nga ñun manoon nañ toog rek eh, Sey Diop Ndigal nekk na secrétariat Ibra Kane nekk na secrétariat ñoom suñ toogoon rek def formation bureau bi war na mën a jàll waaye pour ñun li ñu indi ñu ñu yabalee ñu ñu jóge fu ñëw fii pour ñun ñu dàq ñu wane ne mbooloo mii kat ñoom ñoo fal ñii nga xam ne ñoom lañ indi ci bureau bi parce que fekkoon ne waa kese ñoo toog def ko xaj na mën nañ fal am diw moo xam ne mbooloo mi àndu ci ñun nag témoin boobu la ñuy def ak ni nga xam ne mooy falen bi ak sart yi nga xam ne moom lañ ñu digal ne nañ ko topp saytu ko ba yëpp mat ñu doog a mën a former bureau bi bi ñu ñëwee itam yooyu yëpp ba yëpp mat ñu doog a dem ci former bureau bi ñu wane ne mbooloo mi ñoom ñoo tànnal seen bopp nit ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a fal. Euh, di sant bu baax rek ci teew gi nga xam ne yàlla dogal nañu teew ko te mu nekk suñu bëgg-bëgg ndax liggéey bi dañ ko bëgg mu jaral ñu lu ne ñu ñëw teew fii Touba nag euh, gis.